juróomi at dañ ko war a rek bëggee DEREFJ xam ko ba tax mu amal déjeuner de presse ngir ñu mun a waxtaanee li ñu jot a def juróomi at bi nga ko sampeek léegi. mu di nag célébration boo xamante ne méngoon na ak bilan bu am solo bi nga xamante ne def nañ ko rek ngir gën a ñoŋol lépp loo xamante ne dafa laal ci entrepreneuriat rapide ndaw yi naka noonu yu soxna yi. des réussites. avec des milliers de projets ak ay milliers projets yi nga xamante ne am nañ ko ci bi ñuy doon ñoŋal nag création consolidation yu xëy yu bëri ay échec tamit ndax baax na ñu koy am ngir ñu gën a mun a jàng ak xoolaat lan moo doxul. pour apprendre. pour corriger. demande askan wi nag bëri lool ba tax délégation générale bu entrepreneuriat rapide des jeunes et des femmes di xamle offre bi nga xamante ne néew na lool ak li ñuy jot ci ay woote. dañuy cibler secteur prioritaire yi foofee nga xamante ne dinañ gën a ñoŋal ay ressources dinañ tamit adapté wu ci spécificité locale yi te bëgg nañ jamono ji xool nan lañu waral war a rek woowaatee ñi nga xamante ne déposé nañu atum 2019 ngir ñu mun a réactualiser seen demande parce que du yoon sax ñi tëjal buntu ñëpp fi ñu toll nii tembe DEREFJ nag jagleel na lu ëpp cent dix milliards ci suñuy koppar ci lu toll ci deux cent mille entrepreneurs sénégalais ñeenti téeméer ak fukk ak juróomi start-up gunge nañ leen te ñaar téeméer ak fanweer yi ñoom financé nañ leen ci atum deux mille vingt trois bëgg na itam gën a ñongal dispositif intervention am poursuite mise en œuvre yu ay programme am naka noonu ay projet yi ci mel ni PAVI programme Lion Tech Invest fonds diaspora ak li ñuy duppee nano crédit